parce que dañuy wax waxu société éducative nous ñëpp jàpp ci pour école bi changer école bi nekk école googu nag naka la mën a la la def pour que li ñu bëgg souveraineté ci wàllu agriculture souveraineté ci wàllu économique souveraineté ci wàllu numérique ak ci yeneen euh, fànn yépp école gi mën ci pour que nation bi mën a xam mën a dund souveraineté googu kon loolu la ñu nar euh, discours d'usage googu incha allah ko dina dinañ ko dina développer euh, classement yi euh, lauréat yi am na ñoo xam ne ñaari tour dañ ko ci mademoiselle Zeynab Diène élève la nekk cours privé Racine School mu premier prix mathématique en premier prix sciences physiques mon moyen meilleur lauréat du concours général des classes de première ñu war a fësal tamit kenn koo xam ni ràññee nañ ko ci euh, euh, liggéey jiw rafet yoo monsieur Ahmadou Bachir Touré mu élève au Prytanée militaire Charles Touré. mu am premier prix géographie am tamit premier prix d'histoire mu meilleur élève du concours général des classes de terminale la participation Rendi avons am nañu ñi public comme privé 3203 candidats Madame ñetti junni ñaari Temer ak ñetti donc yu doon Madame des écoliers wante ci lolu 1865 huit Et jigéen ci nekkon garçons ñoo ci donc ci gàttal xale yu jigéen yi ñoo ëppoon xale 1695 ñoom ñoo en première 1508 moom moo en terminale donc première ñi ci 1039

enregistré au total 112 manam Temer à ak distinction euh, euh, euh, raya. ci raya yoyu yu ñu prix le ak 48 63 distinctions en première 49 ñu joxé pour les classes de terminale la classe première 54 mom pour le public 9 modems pour le privé 41 modems pour le public 8 modems pour le privé donc au total 95 distinctions pour le public et 17 pour le privé euh, suñuy xol xalé goor ak jigen ñi parce que 57 distinctions moom moo dem et 55 moom moo dem ci góor euh, concernant lauréats au total téeméer lañu 53 filles à 47 garçons 55 lauréats premières donc dont 36 filles et 45 lauréats en terminale il faut 28 garçons et 17 filles euh, ci statut lauréat c'est une répartition en première 55 lauréats 47 sont dans le public 8 dans le privé en terminale lauréat 37 sont dans le public et 8 dans le privé kon euh, nous ren encore dinañ gis ni série scientifique yi ñoom ñoo gën a am doole raaya yu bëri ñi nekk ci série scientifique yi ñoom ñoo ko am euh, parmi les innovations am na loo xam ne bëgg nañ ko assurer cette fois-ci mooy la traçabilité maanaam ñëpp ñoo xam ne mosoon nañu am depuis 1966 euh, concours nekk lauréat réew mi ràññee la jox la distinction waroo réer waroo dem Chine wala euh, États-Unis wala fenen ba état bi mënatul a ràññee mënatul a retracer kon dinañu gorlu mettre en place ben plateforme bo xamni ne incha dañ ko lancer bis bobu pour que mu mën nek une base de données conformément aux orientations du chef de l'État bi am pour mën retracer donc ses parcours et ses lauréats dafa am solo torop euh, leneen li tamit mu nekk innovation bu am solo mooy xale yi nu ñuy egsee foofu bëgg nañ ci góorgóorlu pour que mu baña nek nekk dugg sa rek dem fofu mais nous, jox les moyens en tout cas opportunité pour que nous avec la population